ñu di waxtaane li nga xamante ne mooy euh, actualité réew mii ak ay invité tey nag incha allah dinañ cànd ki nga xamante ne euh, mooy euh, abu Diallo ngeen xàmmee ko bu baax abu Diallo bokk ci li nga xamante ne mooy société civile asalaamaaleykum abu ñu ngi lay nuyu bu baax. waaleykum salaam wa rahmatullah Seydou Nourou ñu ngi lay delloo nuyoo di la ziar gannaaw bu nu musloo ci seytaane julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def suñu ziaraat yëpp. jaarale ko ci kilifa diine yi njëkkee ko ci suñu buntu kër gi. muy soxna si Sida Baax. mu ziaral ñu suñu sa nijaay Serigne Mbaye si Abdou. ñu sëñ bay Abdou nuyul ñu suñu xalif général des tijaan ñu di ko ñaanal bay si Simon Soor yàlla yokk ko wér te yàlla bàyyi ko fi te naal yi mu naal ak projet yi mu am pour xadara Seydi Hadj Malick ak xadara Cheikh Ahmad Tidiane Chérif yàlla mottalil ko ko mu fekkee lépp ci loxo njaboot gi yëpp njaboot gi yëpp fekkee ko it di nuyu mbokkam ma nekk Touba mhm. ci suñu bunt muy Serigne Moussa Naawel mhm. yàlla boole ñoo ñaari njabootam sëñ Fallou ak sëñ Bass nuyu Cheikh Baba Lamine di suñu baay mhm. ci biir kër Cheikh Maye Niass donc moo ñu bàyyil boppam

di la tiitaroo ñuy gis tout le temps ci say ci say sorties say intervention ci deggu ci ci xam bu baax li nga wax ci ci yar ak tegen surtout mm-hmm. parce que tamit xadara bi loolu rek lañ ci lañ ci lañ ci lañ ci euh mu ngoog alors on va on va parler de beaucoup de choses tey dinañ waxtaane actualité yu bëree bëri waye biñu jëk d'abord dañuy jalé euh, umma islamique dañuy jalé Sénégal ki nga xamantene moy le président Lamine diak mm-hmm. euh diko jalé Serigne Babacar Sy Mansour xalif mm-hmm. général de Tidiane euh diko jalé képp kuy sénégalais rek mu nek une lourde perte pour le Sénégal quand même comme mm-hmm. Lamine oui waaw loolu mu nek Lamine euh, du perte pour Sénégal mais pour aduna bi. parce que Lamine Diak un citoyen du monde. Mm-hmm. Lamine Diak un citoyen de l'Afrique. Mm-hmm. Sénégal dafa un sens mu juddoo ci bir. a porte qui porter drapeau Sénégal ak diplomatie Sénégal yobou ko ba ci tubaab sax mosu faa yegg ci profil tubaab mosu faa yegg ci ay grade tubaab mosu faa yegg ci ay ndombo ba jural ko tey coono yi mu mujj am nattu yi mu mujj am ak complot yi mu mujj am ak ndëgg sërëx yi ñu ko mujj tegal rien que rek la fekk doomu nit ku ñuul la ku yóbbu foofu Sénégal li ci gën a neex ci moom mooy mu nekk ndamu tarixa bi tamit parce que ku ne président Lamine Diack nga jële ko ci waajur yi ba ci Lamine Diack mooy taalibe dund na nekk taalibe mhm. màggaaleeg taalibe màggetaaleeg taalibe génn àdduna ak taalibe donc ku xam yaru kër Seydi Hadj ku xam ni ñu lay yaree sur le plan culturel ni ñu lay yaree sur le plan intellectuel mhm. loolu la Lamine Diack symbolisé doon ndamu tarixa bi ndax ku sëñ Mbay Si mën Mansour seet si ku sëñ Maodo si ñëw taxaw témoignel ku mhm. sëriñ Habib si caatu Seydi Hadj Malick defal kaset jox la turu yàlla ne la dee ko sante suñu borom kooku am nga lu rëy ci tarixa bi loolu muy Lamine Diack tey dafa mel ni tarixa tarixa bi moom moo ñàkk mhm. dafa mel ni nii tey képp kuy taalibe Seydi Hadj Malick yaa ñàkk waaye Lamine Diack sagal nanu ba nga xam ne ni ba bu muy génn àdduna mu ngi kurisam mu ngi ci wetu Seydi Hadj Malick mm. te bu muy génn àdduna mébétam moo doon mujjee gis Serigne Baye Sy Abdou te yàlla defal na ko ko te tey Serigne Mansour Sy Dabakh mm. ñëpp taxaw tey taxaw ko mm-hmm. waa ay sëriñam ñoo ko denc mm-hmm. ay sëriñam ñoo te sëñ taxaw Mbacké mu mujjee yónnee këram yar gi ñu ko yar ci kër gi mm-hmm. noonu la amee ouverture aussi Touba Tivaouane ci ëxlu ci shérif yi ñëpp muy ndam nag lu rëy loolu moo tax ñu ne Sénégal dañu ñàkk waaye nag ni mu demee sutura si yàlla la ak ñaan gu nangu parce tey bu génnee woon àdduna bitim réew mhm. ak ni ko tubaab yi bëggoon tënke ñaawal deram mhm. yàlla indi ko delloo siwaat ko suñu loxo mu génnee fi àdduna mhm. ba su guddi àjjuma génne àdduma ci waxtu xadara ñu denc ko ñi ñi dellu siwaat ndam la looloo tax ma dugal pétition bi dëgg la di ñaan turu Lamine Diallo dinañ ñëw ci pétition bi léegi mais mais dama bëgg ñu ñu ñëwaat tuuti ci quand même ci ci li nga xamante ne mooy li nga wax tubaab bi euh, daal di def li muy def yëpp ngir rek li mu nekk nit ku ñuul def li ñu def. Mhm. mais est-ce que tey euh, suñu état tamit seetaanul trop Lamine Diack. Mmh. wala Lamine seetaan nañ ko trop. Mmh. ñun ñëpp ci am gàcce. état bi société civile bi. activistes yi ONG yi parce que euh, monde sportif bi. Mmh. parce que dañu la wax ni Lamine Diack ñetti citoyen la woon. sur le plan intellectuel fa mu jàngee la war a jàngee. sur le plan intellectuel lamin Euh, foyer français la nekkoon nga xam ne sport ak étude la woon. Lamine ay diplôme la yoroon nekk inspecteur des impôts. mais Lamine ci boppam moom moo ñëw le président Senghor jël ko. bi ñu amee crise en 1968 jeunesse bi jaxasoo. président Lamine Senghor jël ko ne ko yaakaar naa ni yaa ma mën a jeunesse bi ndax boobu Ndakaar jox nañu bopp Lamine Diack parce que foyer bi mu yoroon ak jaraaf magam aussi tàggat ko ci demoon na ba jiboom ndaw ñëpp. loolu la indee Senghor ci stade ñëpp tàccu. Hmm. ñu fàtte problème 1968 si le ko Senghor def commissaire sport secrétaire d'État, mu yoroon waa comme moment boobu ministère de la jeunesse sport Lamine Diack moo faire texte football. football Sénégal jeunesse et sport Lamine Diack la woon. Hmm. parce que nekkoon na commissaire. Hmm. nawetaan UASU ba tey jii lépp. athlétisme tay waxuma Afrique de mais ci aduna bi buñu amé luñuy lu ñuy stade yu ñu am lépp c'est Lamine diak parce que tay dañuy wax ni bat leen sikki Hmm. grade ba mu amoon hmm. ci jamono bañ koy fété citoyen du monde moom la lamine diag amoon ba pare mu dugal lu bari ci ay recette ci dëkk bi hmm. parce que fi mu yóbbu espoir ñi mu tàggat ba ñu dem ba doon ay champion mais lamine dem ba géopolitique ak géostratégique entre xeexu france ak russe ak ukraine ñu bëgg yàq profilu lamin ndax mm -hmm. xamoon nañ ni pare na ñu sacrifier ko ñu sacrifier ko bu ñu ko sacrifier nag pour des raisons politiques et stratégiques mm -hmm. dëkkam xaw nañ ko seetaan xamuñu nag ndax dañuy bañ wax lu ñu wóorul xamuñu ndax ci suuf côté diplomatique am na luñ ci dox waaye gis nañu ni lamin 5 ans yi boo tàppee turam ci internet liñ ciy gis mooy ay wax yu ñaaw ni tubaab bi bëggoon sàkkee jëmmam mm -hmm. ni tubaab bi bëggoon sakkee turam waaye président Lamine muñ ko muñ gu taaru muñ ko muñ gu rafet ndax ñun ñii tamit ñi hmm. nekk société civile bi ñuy xeex assise nationale hmm. Lamine moo ñu jàppale effectivement Lamine a doon financé hmm. Lamine daan ñu taxaw taxaw lépp ci ba ñu xeex tey ba libéré wuñu ci démocratie tey jii lépp président dem na ba benn moment ñun ñëpp kenn musul taxaw marshal Lamine kenn musul taxaw defal ko lenn waaye jaraaf bi nga xam ni moo ko sosal boppam mujj fexe cautionné ba delloo siwaat ko fii fekk suñu borom lii la namoon ci moom ngir mu mujjante gi sa xalif généralam yees luwaat ci tarixaam ngir mën a génne àdduna ci bés bu taaru bi loolu moom ñun ñëpp ci am déception tax Lamine Diack tey ay xalifa Sall ville de Dakar buñ ko gañee c'est grâce à lamin Diack te Lamine Diack bi muy nekk ville de Dakar ñu bari moo leen may bourse mm-hmm. ñii ci sport bi ñii moo leen may ay kër Ah. ndax ku liggéey kadars ba génn àdduna te amoo lu dul benn kër bi ah, te ah. Sénégal ku tourné ne Lamine Diack moo ma may kër ku tourné ne Lamine Diack moo tax ñu am terrain bu ñuy footballé ñu toog seetaan ko waaye yàlla dimbali na ko nag ndax Seydi Hadji Malick jëm mu dëgaloon mm-hmm. ku ànd ak moom sutura la ngay génne àdduna ñaan nga mu ñaanoon moo nangu yàlla di ko suturaal di ko suturaal tey ba Lamine Diack génn àdduna ci génnin àdduna bu rafetee nii bu dalee nii xel mm-hmm. génn àdduna ci yiw génn mm-hmm. àdduna ci taalibe waaye yàlla defal na ko ndam ci loolu nag waaye nag du fay. bu soobee yàlla ndax ñun taalibe yi taxaw nañu. taxaw nañ alors euh, ci loolu ngeen euh, nga nga lancé euh, benn pétition. pour ñu daal di am reconnaissance. Mhm. mën nañ ko woowee noonu ci ki nga xamante ne mooy le président Lamine Diack. mooy reconnaissance réhabilitation. jéem a dindi déshonneur bi ko tubaab yi doon jéem a def. Mhm. parce que tey dañu wax ni ni la dernière génération xëy na boo leen nee Lamine Diack rek dañuy wax procès Lamine Diack. waaw loolu rek lañ xam ci moom yàlla te te kii naan jeunesse. xëy na bi ñu yo bi ñu wàccee yoonu lamin Diack si la ñu commencé am jeunesse bu yàqu waaye texte yi mu fi bàyyi woon ak réforme yi mu fi bàyyi woon ak programme bi mu fi bàyyi woon ñi ci jaar gis nañ ci seen bopp ci la ñoom seex Seck génn ci la yenn jeunes yi ba ci Henri Cam dégg ñu la wax ñoom Henri Camara ñëpp di wan ne ñun Lamine Diack moo ñu doon guidé mhm. donc tey jii nii Lamine Diack moom bu génnee àdduna génération bi am ay image yu ñu am ci moom dañu bëgg état du Sénégal réhabilité waat Lamine Diack comme objectifu tubaab bi moo doon fexe ba lamin jaag yàq deram nga xam ne am nañu stade boo xam ni omnisport olympique te tey fu ñu yegg si olympique comité olympique Sénégal après ci am Lamine jaag la woon après Lamine Diack IAAF tey dañu wax grade bi ëpp ci sport mhm. ci àdduna Lamine Diack la boo nee FIFA fi Sepp Blatter Lamine jaag moo ci topp di nit ku ñuul loolu metti woon leen ñu ne nag suñu réew nanu fexe ba tubaab yi stade international bi njëkk am ñu ciy gis drapeau lamin Diack ak turu lamin Diack ñuy dégg Lamine Diack c'est une manière de leur répondre loolu nag dañu xalaat ni ne buñ ci jógul wax ci ñaan ci dañu njëkkee ñaan moo tax ñu def pétition ñaan wan sénégalais yi le président la ñoo la ñoo fal ñoo lay fay. Mm-hmm. suñu stade aussi ci suñuy xaalis nga koy. faye suñu prêt la. donc Lamine Diack nii turu Lamine Diack rek fi mu yóbbu Sénégal ak fi mu yóbbu exportu Sénégal ëpp na parce que dégg naa ñu ne stade en général léegi dañ koy commercialiser jox ko ay société nga xam ne day am yeneen tur mm-hmm. mais Lamine Diack moo ëpp ay milliards parce que mm-hmm. Lamine Diack moo créé ces milliards. donte suñu stade sooxee na suñu sport waaye li ci Lamine jot a def ak si néew. ak fi koy Lamine jot a yóbbu mérité na lu ëpp stade bi mais stade bi moo fi toll ci wàllu sport parce que sport la bëggoon. Lamine Diack tey jii nii ñun ñaata jàkk la defar. ñaata école la defar ñaata daara la financé waaye yàlla moo ko bëggloo woon sport. ci liñ ko bëggloo woon ba yàlla nattu ko ci. Mhm. ñu tooñ ko ci toroxal ko ci loolu la ñu bëgg ñu sagalee ko ko. Mhm. donc loolu tey la ñuy ñaan le président de la république. mu sagalee ko sénégalais sagale ko waa sport ba pare tontoo ko tubaab yi. tontoo ko ñi bëggoon deram yàqu. pour que ñu tuddee ko le stade. bi nga xam ni mooy olympique bi. mooy stade Lamine Diack. Mhm. nga xam ni tey compétition bu munti am ci àdduna. dinañ gis turu Lamine Diack. ku romb ci tali ba parce que en université Amadou moo defar éducation bi. nga tegaat ci tuuti stade bi ne Lamine Diack. ñu ne la sport bi fi ñu tolloon ak nangam nangam tournée sphère yi ñu may gis. Mhm. ñu tuddee ko Ousmane Tanor tuddee Bruno Diatta Lolo dafa am solo ci réew. Mhm. parce que amatuñu ay référence Té suñu inte élite intellectuelle yi xalé yi mujjé juddu jëlatuñ ci ñom référence xamatuñu ñi. Mhm. donc il faut que ñu réhabilité waat ñoñu pour que xalé yi di xam ne démb ño defaroon république bi. Mhm. Lolo tax bosu Lamine Diack ñu ngi le président ba paré di ñaan nak ñëpp ñu jog ci. wax ci ñi jege président ñëpp ñu wax ci ba paré nak Lamine aussi Laminu kër gi la. sagu kër gi la. sagu kër gi la wallaay waaw kër gi nag dañu war ndi mu nañ ko sagoo. Mhm. nañu ko namboo. Mhm. nañu ànd ak ñun ci xeex bi jàpp ci. Mhm. ndax koo xam ne ni xalif général bu déplacé woo sa kër fekk la Paris Seydi Hadj moo ñëw. wallaay parce que li may faral di wax Sey man Serigne Mbaye man Mansour nekkatul Serigne mbay Sy Mansour. Seydi Hadj Malick la ci moom la sax moom la ndax moo fi toogee Seydi Hadj Malick. wallaay moom la. amaale toogaale fi Pape Mansour. toogaale fi sëñ Babacar Tourandoo. ak li mu doon noo bari. moom mooy la synthèse de Tivaouane kooku bu déplacé woo dugg Mermoz xool Lamine Diack tatagal ko sagal ko señ mawdo si ñew ñew fa señ bay si abdou meilleur daara ji ñew fa a lamine diak nak sagu kër gi la nako kër gi sago na nako kër gi sago te wané ni lamine diak bañ ko jaré ba paré lañu def ci mom dugg na euro ba ñibisi te yaqku ci dara ba bi mi genn aduna talibé chanam tidiane cheikh cheikh rabbi allah taala alors mu ngok merci beaucoup abou diallo muy lu am solo alors euh, tay à part pétition bi euh, yan yoon ngeen bëgg jaar peut-être pour pour waxtaan ci kilifa yi est-ce que waxt am nga euh, jot nga ci am ñoo ci waxtaanal est-ce que la ngeen ay yoon même euh, surtout famille Lamine Diack wala yenn ah, kilifa yi waaw bi mu bi mu amee mhm. euh, tey ci kër gi ah. bari na yàlla ñu ngi am si njaboot ñoom Alpha Mayoro Wele mhm. ay ay ay nit ci kër gi mhm. ñoo xam ne ni ay xale yu am pas-pas bi ñu lancé idée presque bind meeg texte yëpp ñoom ñoo ko def euh, te suñu gisee ay mbokk pas-pas rek lañu bi loolu pare waxtaan nañ ci ak la jaak la Linguère mu mu donn baayam nag ci bi muy dund ci jëf yu baax waaw moom la jaag laa Linguère waxtaan nañu ci ak moom ne ko kat Lamine Diack de c'est international la mhm. waaye du ñu yëkkati loo xam ne ni il faut que ñu am sa aval ci avalu famille bi ndax turam la mun nañu wéyal leen ko Lamine Diack bàyyi ñëpp la moom la Diack moom aussi noonu la meloon mm-hmm. hôpital yi di yóbbu añ di defar li papam daan def te du ci feeñ donc noonu la njabootam yëpp na presque mel mm-hmm. loolu am nañ bi ci topp mm-hmm. mooy journaliste sport yi ñu waxtaan nañ ci Adama Kandé Bekaay Mbaye Alaaji Papa Dieng bi ñuy defal Lamine Diack ñoom Youssou Dieng aussi war nañu dem si yeneen plateau spécial pour Lamine Diack incha allah aussi ñu ngi koy waxtaan ak ñoom waa TFM waxtaan waxtaan nañoo journaliste sport yëpp waxtaan nañoo ak professeurs yëpp waxtaan ci communicateurs traditionnels yi aussi mhm. ñi nga xam ne ñoom Lamine yóbbu na leen fu ne ci sport Lamine ci lutte ak lamb aussi yóbbu na kilifa yu bari ci kii bi ñoo ñëpp waxtaan nañ ci ak ñoom mhm. ba pare waxtaan nañ ci ak aussi les hommes politiques parce que gis nañu mel ni maître Ousmane Seye nga mhm. xam ne ñoom sa idée bi tamit ñu ngi ci seen wet am na ay ministres yoo xam ne aussi contacté nañu leen te ñun dañu jàpp ni ni le président de la ak lii lamin defal Sénégal ndax oh. Lamine Diack dafa defar Sénégal Macky Sall jàng ci Sénégal boobu. ndax ñoom lamin ñoo tàmbali lii Macky Sall la jot. Mhm. kon tay bu lamin bu Macky yegsee fii lamin a tax. Mhm. te Abdou Diouf yónnee na fa ngandi délégation démb ak Mansour Mbaye. donc loolu noonu yëpp yaakaar na nu ni ni lu li mbir la moo xam ne moom amuñu si luy côté négatif. Mhm. parce que kenn ku ne lamin am na lu mu sékk ak yow. donc si fonctionnaire yi. ci wàllu éducation parce que du lamin du laminu sport rek waaye lamin aussi fonctionnaire. lamin aussi sur toutes les sphères étatiques. fi mu jaar yëpp kenn jéppiwu ko. donc te fu nekk nag dafa dimbali doomu aadama yi. macha allah en tout cas témoignage yi ñu jot a dégg ci week-end bi ci moom bëri comme nous l'avons peut-être euh, la dernière génération li ñu xam ci Lamine hmm. mais quand même bu ñuy dégg ay témoignages euh, keroog euh, déglu des témoignages euh, journaliste euh, lamb bi nek ITV euh, aladi ngagna Ngañ Jaañ wa macha mhm. mhm. mu wax mu wax mu ci lu donc mhm. ci social bi keur yi ngay wax kilifa yi bëri machallah na mu taxawoo ci ci ji oh, et même ce qui représentait à Monaco parce que ñom dem nañ Monaco fekk nañ ko fa et ils ont vu ce qui représentait là-bas ciël biñ ko fa jox dayo biñ ko fa jox ak ak ak ni mu doon jaay culture sénégalaise lamb ak yépp donc Lamine diak

donc loolu yëpp lamin Diack la woon waaye ñu dem ba benn moment aussi tamit euh, xam nga les hommes politiques li may faral di wax jaruñoo àndal. wallaay doy waar dañu doy waar ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom booy dund rek. ak bu affaire amee tara lañ lay jege. waaye boo nekkee ci coono yi moom ñëpp daw. Mm, mm. parce que démb rek bi ñuy fete Aline Badara Cissé. démb cent jour yi. wallaay li ñu ko témoigner yëpp. Mhm. ba dara toog na fi ay at balaa muy génn àdduna. ñi ko doon téem kenn ñemewu ko fréquenté. kenn waxu kenn ñemewu koo jege. il était infréquentable. waaye bi mu génnee àdduna nag rafet na dund trop. Mhm. te pourtant nag nit ñi kenn ñemewul woon dem seeti ko te bi mu toogee médiature amatul ay moyens médiature ñu dépouiller ko de see moyens. Mhm. médiature amul lenn lu koy encadré. kenn ñemewul woon jóg ne jàpp leen ci médiature rapport yi mu fa bàyyi sax kenn liiru ko. donc Alioune Badara Cissé ñëpp ko dawoon. Mhm. mais bi mu génnee àdduna moom it taalibe rek ko may li te démb gis nga see waa ko séddaaj li ñoo njëkk a jàng. Euh, seen tay siir jàng fa xasit kii seen i seen i xasaayit mhm. ñee it ñëw jàng seeni i xasaayit fa mu bokk moo lay wan ni moom it taalibe rek ku am taalibe doo ragal ku am mhm. taalibe doo wéet ku Seydi Hadji Malick wala Cheikh Ahmadou Bamba nekk sa dënn mhm. doo ragal doo jaaxle doo adduna doo ko wër looloo tax ñu am Lamine am li mu am nii tey moo tax Alioune Badara Cissé am ko yit en tout oh, oh, ñu ngi lay souhaiter plein plein de succès euh, ci ci combat bu muy kon combat bu noble et euh, ci ci boobu muy li nga xamante ne mooy Lamine Diack alors oh, on, a parlé tout, tout de suite des, des hommes politiques mm-hmm. euh, daf ñuy permettre ñu def transition euh, pour jëm ci li nga xamante ne le cadre unitaire islamique mm-hmm. alors tey ñu jóg euh, ngir ne daal wooy politique yi dañ leen war a charte non violence sàtt lah eh, mhm. bi nag bëri coow lool ci bëri ñuy ñu ngi wër nag di rencontré xaw ma ndax yéen société civile jot nañ leen rencontré. est ce que ñoom gisee ngeen gis gisee non, non, non, non pas, encore donc peut être xam naa yéen yéen ci yoon bi alors. Mm -hmm. nan nga gisee initiative bu cadre inter. islamique boobu. kon cadre unitaire bi d' abord li Abdourahmane Sow ñun ñu nekk côté COS M23 wax képp ku yëkkati tànku jàmm. di dox dañ koy saluer. Mhm. parce que jàmm moy euh, ben denrée la ben économie le moment biñ ñu toll bon mo gëna cher sax pétrole ak or. effectivement ndax bala ngay xam ni moom mooy économie dëggantaan nga ñàkk ko. Mm-hmm. te fi ñu toll géopolitique ak géostratégique fi Sénégal toll moy zone Sahel bi dem nañu légui depuis Libye bi jóge fi ak li xew Tchad ak li xew Mali dem nañu ba yegsi nañu léegi ñu ngi bir Kidira. Mm-hmm. donc Burkina sax jamono ji mënatul gérer bopam nga gis tay zone bi ñu jëm ni ci zone côté arabe donc ñu ngi am Mauritanie si suñu côté te bokkul ci suñu côté Maghreb arabe bi. Mhm. ñu am fa pétrole am fa gaz ñu am côté sud bi aussi. léegi mu nekkaat beneen problème aussi léegi ñu nekk ci benn ceinture de feu boo xam ni mhm. nit ñi jihadis yi en entouré te ñoom ñetti problème yi ñu réglé si mooy ñun dañ ñëw cible mhm. mooy ñoom jàpp nañ ñi li ñu yor du diine jàpp nañu ni ñun mausolée yi ñu yor du ay mausolée ñun dañu war a ñëw soppe gis nga ni ñu def Mali Tombouctou yooyu réglé ko donc loolu nekk ay menace ku woote jàmm nag ne nañu préparer préserver jàmm ndax en général nous dañuy xool ay prox ndoll yu ñuy dugg ci système politique bi la ñuy jaar wala ci système électoral loolu dañ koy appré dañ koy mais démarche bi d'accord ou uñu démarche bi d'accord ou waaw d' accord uñu si démarche à dire d' abord CUDIS bi yëkkati démarche bi di ko def mm-hmm. ni mu tambalé du yoon wi déjà dafa am problème bu njëkk am moy mm-hmm. problème société civile au Sénégal moy la société civile du Sénégal mom mo soxla carte d'identité moo soxla aussi ñu fóot mbubbam moo soxla aussi ñu solal ko mbubb utal ko couleur utal ko tur ak sant mhm. donc société civile Sénégal moo yàqu depuis 2012 bi Abdoulaye Macky Sall installé wu mm. ñu divisé wu mu am société politique après les événements de mars ñu divisé wu. Mhm. bi société civile rangé wu ci côté opposition bi. mo am société civile bu dem institutionnel ñom lijjanti wu ñu dëkk bu am jamm bu amul jamm ñom marché yi lañuy ñuy mhm. ñom rapport yi lañuy ñuy ay mission mhm. d'observation ay FMI ay banque mondiale mo am benen société civile bo mu nga ca programme mu jàmbur yi. moom ay avortement médicalisé lay lijjanti. ay problème mu genre lay lijjanti. mom ma nga ca ONG. mo am benen société bo ils se disent activistes. ñom it ñu ngi yàq ñu ngi dóor ñu ngi toj kenn xamul lu ñu bëgg ñu yattu ñu occuper télé occuper média yi mhm. donc loolu moo dem ba jaxasoo benn moment mu am manipulation ci biir mhm. ñu ne ñun société civile bi faw ñu xam statut lan la CUDIS c'est une association Cheikh Ahmed Tidiane Al Amin moo ko jiite bu ne cadre unitaire de l'islam mais à côté am na ànd sàmm jikko yi te pourtant ñoom ils se disent de l'islam mhm. am na yes mhm. donc ñoom ci seen biir dajaloowuñu association des nekku ñu benn mhm. quand par parle cadre islam de l'islam la religion c'est pas l'islam seulement c'est l'église te la responsabilité bi église di jël souvent di exiger parfois di def ay texte di envoyer exhorter état fekku ci yenn gars suñu côté fekku ci ñoom cadre boobu léegi nag mën nañ leen nangul ni ni bi ñuy dox l'affaire Ousmane Sonko

mais buñu seigne Mohammed bakay Badawi kan moko yabal. bi bi. Mhm. donc non la am ci taale ni am ci ki bu ko cadre bi continuer continuer de faire la médiation ñu consolider ko bu ko defee lolu continuer waxtaan ba paré buñu yexé fi ñuy wax ñu fexé ba khalifa nga xam ne ni ñoom politique yi ñoom syndicalistes yi ñoom ñoom opérateurs économiques yi. Mhm. lu nu rakkaaju rakkaaju ak lu nu leen abandonné abandonné bu gàmmu jotee wala màggal jot. Mhm. seen commercial pour mu dox faw ñu dem ci sëriñ si nuyoo ji. waaw faw ñu dem présenter ji seen produit parce que Seydi Hadji Malick lay créer événement buy jur ay milliards. Mhm. sëñ Bambaye créer événement yi jur ay milliards. Medina Baye donc ñoom ñoo yor économie bi. effectivement moo tax da ngay dem ci xalif généraux ñu waxtaan ne leen kat yoonu jàmm ji ñu jël ñun xalif bëggatuñu ni ko Maye Niass defee fii Cheikh Maye Niass woo njabootam neel conscientiser leen. Mhm. sëñ sëñ Mbaye Sy Mansour jógu ci. Mhm. parce que moo njëkk wax ci affaire homosexuel yi. moo njëkk a wax ci affaire góor jigéen moo njëkk a wax ci la rencontre des xalif généraux. moom mi nga xam ne sol na dàllam dem di ko dox. Mhm. Serigne Mountakha aussi jógu ci. bi Covid bi jotee jóg na joxe participation joxe leneen. foofu lañu ñu waroon aw ñoom. ba pare pourquoi ñoom ñu jàpp ni ni 1 pour cent des politiques ñoo yor Sénégal politiciens yi matuñu lu dul 0,0. te eh, góoruñu ñu liggéeyuñu. majorité bi c' est des c' est des c' est des c' est ministre rek ngay dégg ak ancien fonctionnaire. ku ci tabax école. Serigne man Serigne Mbaye Sy Mansour 4 milliards la lancé un projet ñaata emploi la créé. Serigne Mbaye Sy Serigne Mountakha ñaata. université bu ñaata ki moom Malick yaa gi tey ci tarixa bi ñaata emploi la créé. macha ña nekk Asfiya ñaata emploi la ñu créé. Mhm. mais ñoom lan la ñu créé. dara lu ñu créé léegi ñoom dañ leen war a wax eh leen. Mhm. yéen seen parti ay GIE lañu yéen dem leen former seen i militants ak seen i citoyens yéen la seen njaboot nekk ci réseaux sociaux bi di saaga xalif généraux yi. ñoom la yéen yar leen seen bopp. Mhm. yéen uti leen programme uti leen projet de programme. Mhm. yéen yéen amul programme. yéen yéen a bëgg a jël ndaw ñi di leen xeexee. Mhm. yéen ci seen wàllu bopp proposition d'idée ak programme moom leen war mais xeex waru leen. donc l'institution qui respecte le wul pour diriger Nous avons dit a taxaw régler la charte fondamentale de la nation avant la charte. Ah. la charte fondamentale de la nation. su doxee une charte ba l'opposition, opposition bii ngay dem di La charte. charte des assises nationales nous avons créé signé ko dañ respecté. Macky Sall seen daf ko respecté donc charte bi ñu defoon M23 kenn du campagne Macky Sall daf ko defoon daf ko respecté woon kenn da ko respecté woon manko bi ñu koy sos maa nga fa membre fondateur charte lañ amoon kenn da ko respecté charte bi amoon gor sa wax ja kenn da ko respecté charte hmm. si bi ñu defaree yeewi sax ah, nu ñuy falee maire yi ci charte boobu lañu trahiré so am war dina hmm. dañ ne woon charte maire yëpp ay conduire charte boobu sax respecté wuñ ko ci seen biir ñoom du nu xamuñu charte res mi nuñu charte nga ñëw di leen wax waxi charte waxi charte yow sa wàllu bopp ñu ñu bëgg xam sa charte yow lan la. Ah. lan mooy sa taxawaay. Ah. mais donc boo gisee la composition de la délégation de Cheikh Abdou Aziz Al Amin ah. mais c'est pas seulement l'islam. il y avait les Adama Sow Grave il y avait des personnes il y avait d'autres dañu waxoon ni ni dañuy def ouverture man seeti naa Cheikh Abdou Al Amin këram ñu toog ci appartement ma ne ko il faut que mu am une troisième voie comme na di la ko Serigne Cheikh waxee woon ni xeexu Mamadou Dia ak Senghor bu amul troisième voie. boo xam ne la ñuy tracé ñëpp dinañ sànku ci politique yi te 1962 ba ba fii ñu toll politique yi ñoo ñu jël en otage. effectivement jaïs maoïs Cheikh Antis ñëw fële idis makis xalifis. <laughs> ñoo ñu jël en otage. te ku ci am sa problème. Mm-hmm. Tiwaawoon la ñuy dem sëñ Al Amin jóg mm-hmm. wala sëñ Mbaye Sy Mansour Diop wala mu sëñ Mountakha jóg ñu réglé ko. te gis nga ñooñu it ñun suñuy problème ñun jaralu leen ñu wane ni ay taalibe lañu. Mm-hmm. te ñun ñooy réglé seen i problème te ñun suñu sëriñ yi sax amuñu statut. amuñu code bu ñu leen mën a identifier mm-hmm. tey ñu leen di saala te amul fenn foo leen mën a jëlale ñu ngi leen téye ci réseaux sociaux ñoom seen jàng daara ji ñu yor régulariser wuñ ko mhm. éducation religieuse mu ngi fii ñu mhm. yóbbu ko ci ministère culture mhm. ñi am bac arabe bi ñu leen intégré yàggul te tuuti lañ leen jox tey ñaata daara ñoo fi nekk sóoraale wuñ leen DER sóoraale wuñ leen FONGIP dañ leen jàppe rek nitu mbedd yi boobu léegi ñuy wax waaw léegi yéen ñun ñun ñi nga xam ne réglé wuñ suñ problème te ñun ñoo yor économie bi ñun tey jii ñoo créé ñi ci daara ji ñun ñooy woote Sénico di jàngale alxuraan di joxe ay prix ay millions yéen yéen a ngi ay miss ak ay programme mooy cent mille francs cinq mille ngeen ñu mën a jox fee mën ngeen baat rek ñun ñun ñoo ibbi suñuy télé du ngeen ñu sponsorisé yéen a nga ca télé yi sponsorisé ak fecc wax léegi ñun du duñu am fulla ak fayda bien sûr ñu wax ak ñi nga xam ni ñoo ñoor ma ne ko dañuy dem seeti le Synpics boobu dañu tëju ñu waxtaan ma ne ko bu ñu toogee société civile li fi des bareetul ñun cos M23 dañ ne duñu am këyit parce que M23 lañ bëggoon def association muté ko ñu bañ. Mhm. ne du doon appareil état yéen yéen fi nekk ñu dem seeti ji Alioune Tine ñu defar charte boo xam dañuy wax kuy nekk société civile amoo droit nekk ci parti politique parce que Cheikh Tidiane Al Amine moom xëy na amul parti. Mhm. mais ñi ko wër foofu yëpp am nañu ay parti. ay politiciens lañ ay politiciens lañ jàmmi réew mi ña fa nekk ñooy ñooy siégé doo après aussi ci yeneen groupe yi donc amuñu pour du ñu am crédibilité. Mhm. seeti ji ñi nga xam ne ñoo téye dëkk bi seeti ji artisan yi ñi nga xam ne bu ñu xeexoon fii tey duñu ñu liggéey hmm. te 80 pour cent de l'économie ñu wan leen ni yéen yoru leen dëkk bi dem université teg chart ñiy liggéey ne fii bu fi kenn duggati di génne ay étudiants hmm. def ko noonu def ko noonu fépp seeti police bi seeti gendarmerie bi seeti UMS ne yéen justice bi aussi bu ngeen jàppul ci léegi seeti baro bi loolu la ñu waroon dajale teg ne politiciens parce que ñoom am nañ lu leen war li leen war mooy nañu defar seen programme ak seen projet de suite ak seen campagne électorale tey Abdourahmane Diouf indi na idée mais faale wuñ ko Thierno Alassane Sall la ngi fi mais faale wuñ ko mm. ku leen woo ci débat d'idée duñ la woo donc lu ñuy def rek mooy coalition boo xam ne violence verbale attaque réponse riposte saagante alors kon kon da nga bëgg a wax ne donc euh, Sonko a a une raison de dire que du ma ko signé mais mais li Sonko wax mm-hmm. xam nga li bi bi Sonko waxee dama ne leen loolu ça lui revient mm-hmm. c'est un homme politique mm-hmm. ñoom ñu ne ñu ngi seeti ji homme ñu am nañ idée de charte man d'après les informations yi ma am sax dañu wax ni ni ñoom beneen groupe ñoo amoon charte pour xawma non au troisième ñoom it ñu jóg ne dañuy def charte pour bañ kii loolu la dégg comme information bi wóoruma mais ni ma gisee ñuy doxalé di avancer jëm kanam di continuer sen communication di foncer cela veut dire que ni amna lu mu des am lu dess mais lo bëgg mu jaar yoon dajalé ko fi Sénégal ñaara fi am ba ñu xewee ba légui liñu am ren musuñu ko am Cheikh Maye Niass Serigne Mbaye Sy Mansour Serigne Mountakha ñetti xalif général citoyen Sénégal am lu kenn amul mooy ñett ñoo xam ne ni saa yu ñu àddoo rek si askan yu jafe-jafe askan wi la ñuy waxe mhm. waaw ñooñu ñooy vraie société civile bi ñooñu fu ñu yebalee seen ñetti njaboot mhm. seen ñetti porte parole taxaw addu wax ji jeex effectivement mais nañu dellu ci ñooñu ñooñu tey ñoo téye sax économie nationale mhm. ñooñu tey ñoo def les grands investissements les grands projets ñu la tey mais du ñu jaar ci ñooñu ñu wax ak ñoom ñu dem associé si yéen kër yi nga xam ne yéenay wane lu baax di jàngale lu baax

loolu la bëggoon wax en fait moom la bëggoon ñëwee dafa melni euh, au finish dafa melni ñom ñoom dañoo dañoo dugg ci benn goutte bo xamantene xamatu ñu fuñ ci génne parce que aussi euh, voilà yenn yenn kàddu yi aussi boo déggé da ngay xamné lu xel mëna nangula parce que souvent est-ce que c'est pas l'État qui provoque la violence est-ce que ñom artu nañ état bi ci euh, voilà donc il y a tellement de de qui mais xam nga l'espace politique hum. xam nga dafa am benn espace gis nga code consensuel Kéba mbay hum. gis nga euh, société civile bu bu charismatique ñoom Kéba Mbaye maître El Hadj Mbodj Mouhamadou Mbodj forum civil ñoom Alioune Tine maître Alioune Badara Cissé yi ñooñu ñoom ñoo tëju des juristes mhm. d'éminents juristes ñoo tëju de vrai daan ne lii fi am boobu ba léegi du élection defar un bon code bi ñuy defar code bi dañ ciy sóoraale benn intérêt parti politique mhm. bi ko Abdou Diouf xoolee ne lii nga xam ne sénégalais tëju di ko defar mhm. lii du ma ci dindi benn virgule mais pourquoi ñun suñu biir ñun société civile bu nu paree waxtaan ci suñu charte tëju waxtaan part par patronat bi tëjandoo ñëpp ne ñun réew mi dañu bëgg de huit heures à dix huit heures bu nu kenn sonal di baare dëkk bi. Uh-huh. dañu bëgg léegi maintenant mairie yi nga xam ne ni seen i parti politique lañ koy jox ñu yóbbu seen clientèle politique. nga xam ne amul appel do amul appel candidature amul dara seeni clientèle politique dañu bëgg ñun ci suñu biir yii buñ ko tee dañu bëgg économie nationale bi société privée bi ñu dooleel leen buñ ko waxee mu réglé dañu bëgg université bee suñ doom yi di jàngee ñu réglé ko bëgg syndicaliste yi ni ko al doon defee uh-huh. bu syndicat yi ñëwee dañ ne eh lii du lan ngeen di revendiquer mais tey syndicats yi ñoo ëpp militants wu travailleurs yi. parti politique yi ñoo ëpp militants yi. presse bi ñoo ëpp presque journalistes yi. Mmh. sites yi presque ñoo ëpp maintenant euh, CORED ak ña fa nekk ña leen war a réguler. Mmh. wax léegi fan lañ jëm. ñeen mmh. ngeen ñëw aussi créer des associations jàmmi dama ne cadre l'islam laa wax. cadre bi koy xeexal déjà a naa leen ñoom Cheikh Omar Diagne a ngi seen biir rek di ñu xas te mu ngi jàmmi réew mi. te mu ngi jàmmi di xas leen attaquer lu ñaaw. te pourtant ma nga jàmmi réew loolu xeex la association islamique am nañu soutenir Diouf Sarr taxaw na ni si lañu les imams am nañu soutenir Diouf Sarr donc loolu problème la ñu ngi am ñaari donc li ñu war a régler ñoom foofu si nan la ñu war a régler ba nga xam ne ni daara ji daara ji nan lañ leen di intégrer dans le système mooy seen chantier c'est important donc bu ñu régler loolu nag ba pare mhm. ñoom ñu ñëw nag ci le financement de parti politique ak le financement des organisations parce que mënu ma comprendre ay CUDIS bu ñu amee ay cumulage ak ay OSIWA ces organisations yoy nga xamni ni ñom musu leen gis ñu tabax Juma, wala jàkk wala daara wala école euh, euh. ils sont sur des programmes de genre yu kenn xamul euh donc ñoom dañ lay fekk fii dëkk bi amul ndox ñu naan la genre équité égalité de genre égalité de sexe yooyu lañ ay démocratie yu kenn xam. et ce mot-là doit disparaître même de notre jargon. de notre jargon. genre moo boobu moo war a disparaître en fait. donc mënuloo taxaw looloo tax nag benn moment bi Ousmane Sonko jëlee position daan ne du ma signé charte boobu peut-être que composition bi ak ñi koy dox. la wóoluwul. Mhm. parce que tamit moom bi mu nekkulee ci yoon ñeme wuñ ko wax nekkoo ci yoon. ah merci loolu laa bëggoon a wax. mais bi mu nekkee ci yoon parce que souvent aussi voilà cadre bi Barthélémy génnee ne du ma dem wuy ji te ñu xam ne moo laaj appel bëgg a def manipulation lu tax ñemewuñ jënd ne Bart yaa nekkul ci dëgg demal wuy ji daan ne Sonko yow xale bi dafa laa accusé yaa nekkul demal nga wuy ji ci yoon daan ne eh li ngeen doxal nii du yoon lu tax ñoom duñ ko def man foofu laa bëggoon waxee en fait non xam nga du ñuy joxoñ dañu ko tàmmool dañu ko tàmmool donc au crédibilité bi ça doit crédibilité léegi nag il faut que ñu jël seen courage parce que ku ku donc ñoom dañ leen yàpp parce que tamit ñoom ñoo nekk ci seen biir te ba pare lii xew ci biir opposition bi ak société civile moo jaral leeral ay membres société civile yoo xam ne ni ñu ngi ci parti yi ngoon ni activistes yi am nañu candidat yi am nañu parti yi am nañu mouvement tay eh, ana M2D il s'est rejoint avec Yewwi ah, c'est ça on comprend pas on comprend plus merci beaucoup Abou Diallo euh, yéen ngi baye xel Actu Show ci Malikia TV ñu woowee ki nga xamante Abou Diallo bok ci société civile alors tout à l'heure tu tu euh, laal nga ben point euh, ba bëggon ñu wax ci tout rek bala ñuy jall ci lénen moy financement au parti politique yi tey ñu gis la coalition Yewwi Askan Wi à travers Ousmane Sonko mu lancé ben cagnotte alors est-ce que tay du du du parti politique même ils se disent membres de ces partis ñu ñu parti politique peut-être euh, ñuy xalaat fonds yi fenen ay pour campagne électorale Nous wax mhm. mais euh, cotisation pour fonctionnement de leur parti. ok wax pour campagne électorale. Nous avons lancé. Mhm. am nañ droit. Mhm. parce que c'est une coalition objectif bi am pour outil ay moyens dem outil ji parce que li ma wax moo ci nekk. Mhm. kenn ku ku pour collectivement pour développer soxlawul campagne joxe xaalis. wallaay soxlawoon jël ay oto. parce que déjà ñoom rek muy Ousmane Sonko muy Khalifa Sall muy Déthié Fall kenn ku nekk dix garde corps yi lay wër. 4-4 mm. Cadillac ñetti oto yi nekk sa wet boo ko estimé. Mm. ñoom ñëpp coût ak li ngay fay loolu ku si ne c'est des millions. c'est te donc bi Serigne Mbaye Sy Mansour di jaay ay pinsam. Mm-hmm. di lancer appel am pour jumaa ji la. Mm-hmm. pour lu ñu dugal aljana. Mm-hmm. donc di dajale pour lu defar Touba la donc te ñooñu terewul ñoom Serigne Mbaye jël nañ deux cent millions ñoom joxe ci Covid bi ñoom Serigne Mbaye si Serigne taxa mhm. ñoom Serigne bay si Mansour jóg nañu aussi daal di créer emploi mhm. defar leneen waaye ñoom cagnotte pour campagne yi la ñu wax waaye campagne boo xam ne mooy lan investir la après nga donc mairie yi dañ ne bu dee c'est pour d'utilité publique daf ko soxla mais beneen bi mooy yow balaa ñuy laajte cagnotte nañu régler le problème de leur propre Mhm. seen école de parti seen siège parti fu ñu am parti nangam nangam ba pare mhm. et c'est dangereux na ko ñëpp reconnaître parce que ñun ñëpp xam nañ li xew nekkoon naa ci parti politique mais dama chip politique parce que homme d'affaires bu am ay milliards mooy nekk seen ginnaaw ñoom ñëpp nag mhm. mooy li ma xam nañu dama wax dama ne 500 yi la naan ay kañoon parce que gis nañ fi lu xew jamono ji ay koppar da gis activiste wu kii nañ nga gis koo xam ne ni zéro la départ moo ñun ak yéen yéen a war a wane gars yi tekki yi les zéro ñi nga xam ni zéro lañ jógee ba ba départ. ñi jóge fii dem ba créer ñoom ñoom Ahmed Amar ñi ñu ñu def noonu Ablaye Dia. Mhm. bay jël ay millions di ko jox nitu alxuraan yi. ni mhm. ñoom euh, kii def Saxir Thiam ibbi mhm. école. ñooñu lañ war a wane. ces investissements humains yooyu ñuy def. mooy ba ci ki moom kër gi li mu def. gis naa ko ci xar yi gis ko ci tabaski bi gis ko ci yooyu mais laajul te pourtant mu ngi investir ci nit ñi. Mhm. léegi bu ñëwee di la wax prétexte dafa am ñoo xam ne ni c'est des entreprises internationales am ñoo xam ne ni ay système pétrole bi am ñoom ñu nga bitim réew. Mhm. ñu nga fa ñoo yor ay xaalis. Mhm. di koy jox parti politique yi xeex leen am ñoom ay homme de média lañ maa moom média sàngam su ngeen ko bëggee contrôler leen ko. donc loolu moo fi am. moo tax ma ne ma ne est-ce tey. li ñu def nii est lii mooy li nga xam ne moo ñu war mais nag mu fekk mu dëgg. non mais dafa am moo mu fekk mu dëgg moo moo gën ñuy wuti ay financement yoo xam ne après. daf ñuy tënk mais bu dee ci élection locale waaw bu dee élection locale la li ñu waroon wane. Mhm. mooy ñun de askan wi. bu ñu jëlee maire bi seen recette la ñuy utiliser ñun de bu ñu ñëwee nii mooy projet programme la. Mhm. nañ toog waxtaan ak nit ñi quartier par quartier porte à porte. Mhm. lan moo jar jënd ay télévision. opposition buy dem di jënd ay ligne télévision. opposition buy fay ay jënd ay journaliste jënd ay site moom ko opposition buy dem di jënd ji ay journal ay titre journal. opposition buy jënd revue de presse. pouvoir buy accaparer ay presse pouvoir bu am ay journal am. pouvoir bu jël RTS. def ko ci à sa disposition. pouvoir buy jënd Diouf Sarr TFM dafa jënd ay temps. Mhm. Macky Sall day ñëw jënd publi reportage 31 décembre kenn du wax man rek wax. yow président de la République soxlawul. Hmm. nga gis soxlawul ngay jënd ay kii yow bilan la da ngay wax askan wi vous êtes redevable. pour yow tamit ay proposition ngay def. Hmm. donc booy woote loolu naan xaalis laa bëgg pour dem campagne mooy damay dem pour naxante. joxe ay t-shirt joxe ay casquette. Hmm. joxe ay oto joxe ay gyrophare joxe ay way joxe ay concert. daf ko fi jaar moo dama ne nañu dellu ci daayira yi. nañu dellu ci daara ji ñii wane nañu seen limite. kandaa yow pour yow solution bi. solution bi mooy nit ñi jël seen responsabilité askan wi nag bi nangu ñu leen di nax parce que ñoom it dañu créer seeni clientèle politique yoo xam ne ñooy nekk dans les réseaux. Uh-huh. di nax askan wi naan leen c'est diw voilà nangam gars lu ñu xam ministre de la parole rek lañu. waaw ñu dara. Uh-huh. ministre de la parole lañu mais tey ban projet de programme lañ lay proposer. yow kuy uti ji di wax damay ut moyen pour dem campagne daf ko jàpp. seen élément bu fa nekkee na présenter bilan am. te nañu bàyyi naxante bi mairie yi bi ñuy dem mairie yi def sept man trois quatre cinq mandat dañ cee wax te pourtant saa ñu yeewoo ne troisième mandat ñoom opposition mais lu tax waxuñu ci mandat mairie ak député yi am sept mandat trois mandat te nekk dans l'opposition quand ça les intéresse dañ ci wax bu leen intéressé wul bokk si ñoom duñ ko wax di manipuler nit ñi am seen i journaliste am seen i bopp lu neex waaye wax def a médiatique terrorisme de amatul kuy des débat entre les partis politiques de de la de l'opposition troisième mandat la page est tournée ñun sommes ko pas c'est nul nul ne peut faire mais nous, ci nous dirigeons, ñi ñuy diriger indi un programme indi personnage indi profil wan projet de société mais nous nous ñu jaay ay saga. bu leen ñu jaay ay ñoo ko tey di jël seeni booy ñuy désacraliser les autorités religieuses am ay religieux aussi yoo xam ne ni bu leen heure bi fekkoon ci tabaxi daara bu leen heure bi fekkoon ci ay tabax ay chantier duñu tal politique bi duñu tal politique donc loolu moo fi nekk <laughs> moo moo fi nekk euh, euh, xam naa émission bi euh, li ci des bëriwul sax sànq tudd nga ko donc muy on va on va ci côté justice dinañ wax ci ñu laal ci ñaar yoo xamante ne quand même mu ngi traîner bi ci njëkk mooy problème Sénégal on a vu beaucoup de plaintes mais dafa mel ni daal affaire de voilà dafa mel ni mujjatul fenn en fait ba léegi déggaatuñ ci dara. Oh non xam nga affaire Miss Miss Sénégal man bi ñu waxee ci Miss Sénégal bi dama wax ma ne nii non ñoom dañu ndaw ki génnoon def apologie. Mm-hmm. daan ne ku ñu def nangamkat nang juum ci communication daal di ñëwaat ne dama juum jéggalu. Mm-hmm. ma ne leen nañ ko jéggal.

nekk ci ONG yi. naan dañuy Orange Monde ànd ak FM banque ONU Femmes ak ñooñu. waxuñu ci xale yi jigéen yi tëraan ci mbedd mi waxuñu ci jànk yi taxawaalu ci mbedd mi waxuñu école yi amul douche waxuñu jigéen yi amul service waxuñu xale yi jigéen daara yi nekk ci condition yooyu lijjanti wuñu loolu ñooñu tey yeewu ñu ne affaire Miss Sénégal parce que lu am tur la àdduna dañ koy dégg ñoom ñëpp ñu yeewu mhm. ibbi benn site taxaw ne dañuy kii ay nit ñëw di fa accuser ay nit te demuñu def plainte ok non mais finalement ñoom def nañ ay plainte. déedéet ñoom jigéen ñooñu. Mhm. ñooñu di taxawaalu jigéen ñooñu si ci yooyu ñoo dem def ay plainte. waaw ñooñu nga xam ne bi dossier Adji Sarr ñëwee dañoo daw. Mhm. waaf. Mhm. ñooñu la ñuy ñëw jël dossier bi mais Adji Sarr du salon de massage la ñu ibbi yu illégal yoo xam ne ay xale yu ndaw lañ fay jëf ñuy bës ay góor. loolu lu tax jóguñu wax ci. ñuy utiliser ay xale yu amul vingt ans. loolu du du kii xale bu jigéen bi dem AGS mais ñoo ñooñu tey ñoo bëggoon génn parce que occasion yi la organisation féminine yi am pour lekk xaalis. yii la ñu am pour mën a présenter waat. parce que ñu nekk ci. kon yow da nga jàpp ne ñoom folklore lañ doon def parce que parce que élection mi su Sénégal ah. am mooy licence la état koy organiser. mais état bi koy organiser dafay jël ay télévision. Mhm. sponsor yi LONASE bi bàyyi école yi. Mhm. bàyyi hôpital yi ñoo koy su ah, suñu état yi ñoo koy sponsoriser licence la mu koy organiser. donc kooku bu muy la te loolu dal ki jël doomam yóbbu ko ca daara sëñ Mbay Abdu bi mhm. ki jël doomam yóbbu ko fële Proxaan mhm. mais ki jël doomam signal ko damaa bëgg nga nekk miis mhm. wala dama bëgg nga dem fële event pro ñu ngi def casting ñu nekk un million jigéen

fois jigéen ñi bëgg a mbubboo ci loolu def ay sans plainte def ay site ñuy xas nit ñi di accuser nit ñi di def leneen pourquoi defuñu ko ci dossier yooyu mu ngoog alors euh, beneen dossier tamit boo xam ne mu ngi traîner lool ci ci wàllum justice muy euh, yëfu ñaari député yi nga xam ne dañ leen accusé woon ci yëfu euh, ay passeport diplomatique ak trafic ak yu ni mel mais ñu gis ne bi ñu dindee seen mbalaanu kiiraay ba léegi. Euh, melul ni ba ñu dindee bosu Ousmane Sonko bosu Ousmane Sonko moom dañ ko convaincre ñu dindi ko c'était vite fait en fait sénégalais yëpp gis nañ ni mu demee. alors bii moom dafa dem nañ ba ñoom seen bopp sax ñu ne dañoo yàkkamti ñu woo leen loolu moo tax woowaguñ leen. wala oh xam nga dossier boobu. Mhm. li may wax parfois ay avo ay manipulation yu def ci am xam nga dossier boobu nit ku am problème moo dem en moom lañ jàpp ko enquête ba mu cité ci ay député waaw. donc nañ suñu police ak suñu gendarmerie dañu liggéey ba su ba su Ousmane Sonko aussi xale bu jigéen moo dem police ñuy entendre. Mhm. ba war ko convoqué nga gis benn capitaine bu défaillir sax. capitaine bi dawoon jël ay fuite informe naroon yàq image gendarmerie. Mhm, capitaine Touré. capitaine mais tey gis nga amoon na ñu ko tagal yére di ko sax loolu c'est sa sacral. Mhm. moom moo def sax ñu dem ba yóbbu enquête mu dem ba ci loxo procureur. procureur bi jël dossier bi daal di koy jébbal mooy parquet. mom dafa am lu ko linké ak état loolu nak pour mu dañ loolu c'est un long combat combat de refondation et de réforme la moy état bi bu ñew comme ñi di ñew ci sen projet ak sen programme ñoom ñoy ñew ne dañuy dem refondation looloo nekk ci assises yi looloo nekk ci CNRI mhm. looloo nekk ci programme yëpp moy c'est-à-dire ministère public bo xamni ni parquet dootul dépendre ci mais loolu tay mo indi ñom procureur mhm. mu jël bële yóbbu procureur aussi moo def enquête joxaat leen ne dem leen assemblée dindi malaanu kiiraayam ñoom nag bu ñu leen waree auditionné ñu war leen enquête ça dépend ci parquet ak police bi léegi nag état du Sénégal moom mi nga xam ne mooy garant de la sécurité et de la justice moom ci wàllu boppam mooy xool ndax moom dafay accepter crédibilité crédibiliser la justice parce que moom ci boppam mooy chef d'état supérieur mooy mooy forces armées moo magistrature que ñun ñoo jël super président tey mu ngi nii ne buy politique fële Fuuta ministre boobu aussi nommé ay procureur am procureur yooyu c' est des magistrats assis. Uh-huh. les magistrats debout sont indépendants. Uh-huh. bu nu bëggee dindi loolu dañuy changer texte yi changer conseil supérieur de la magistrature. changer ni nga xamni ni mom la parquet lolou dafa nek xeexu citoyen yëpp motax man les organisations des droits humains mhm. ñu ngi sali ñu ngi ci séminaire yi ñu ngi ci programme ñu ngi ci perjëm yi mhm. mais waxuñu prison yi conditions yi waxuñu conditions de détention yi waxuñu ci ci ci présomption d'innocence buñ la jappé comment nan lay les conditions même de nos policiers et de nos gendarmes tay li jotta a xew nii bërki démb tracasserie bi transporteurs yi nga xamni ñom ils sont dans l'illégalité mhm. di accuser des institutions comme police et gendarmerie tay kan mo yàq sen der suñu police ak suñu gendarmerie la ñu accuser ñoom ñoom ñi nga xam ne ñu ngi si lool lool état moom moo désacraliser les institutions mais état nag dañ koo fal. 58 pour cent. am 40 pour cent buy opposé bu ñu leen falee nag ñoom ñi toog bilan la ñu sekk ak ñun. mais nous, ñi wa bëgg ñi nga xam d'accord yu seen gestion nag dañuy dem outil yi beneen projet ak beneen programme mhm. mais day fekk citoyen yu am doole citoyen yu ràññeeku citoyen yu nangu jël seen citoyenneté en main mais pas des citoyens fanatiques pas des citoyens qui pensent que ni leur leader c'est des dieux mhm. pas des citoyens qui ëpp xam-xam sax c'est leaders yi pas des journalistes qui ne sont plus des spécialistes mhm. mais correct la ñi les débats seront posés sur les questions de la justice tay foo dem amul desk religieux amul desk politique amul chroniqueur amul chef de publication. tu vas je parfois quand je cite leur nom les gens me disent que non mais les papa les ñaa fi les doyens di def lu leen neex. ben site ben radio ben micro. di mhm. bind lu leen neex ñu wax. Mhm. di jël ay position yene télé yi du ñu censuré li Gaston def kéro Moustapha Diop bu feug dëndam. waaw mais pourtant da ko waroon censuré li xew des médias. parce que c'est enregistré ci c'est enregistré. dañ la ko jàngal ko bañ diffuser quand même. ne la yow mi jël lolu da koy génnee. waaw. mais yow nga génnee ko parce que da nga soxla buzz. buzz waaye da nga soxla leneen dañ la wax bu dee information la bu mu wax sax da ko war a yóbbul police. Mhm. nga ne leen kii kat wax na fi see déclarations. Mhm. mais loolu yow na nga koy wane. parce que comme c'était pas en direct. waaye nga jëli Assane Diouf bu taxaw di saaga nit ñi jox ko micro. nga jël benn ah, benn chroniqueur muy saaga nit ñi nga jël ah, Ahmed Aïdara muy def revue de presse après waxaale ci campagne électorale mhm. nga jël benn prêcheur comme kaawu Iran mu toog ci biir télé. di attaquer des institutions religieuses. ngay couvrir ko. mais loolu yëpp c'est les médias ba pare ñu ne la correct mu ngi fi loi moo ko fi hum. ñu la carte nationale de la presse mu ngi détecté ay faux cas ay ay faux diplôme. ñu wax la ne la ñoom ci seen wàllu bopp ñoom journalistes yi seen bopp 300 les 300 presque 70 ñoo ci inscrit euh, appel. ci Ismaïla Madior yi ci des yëpp c' est des sites fictifs c' des sites fantômes ay nit a ko créé ay chef de parti ko créé. am na sites yu tudd Thiaay sites yu tudd Kourous. sites yu ah, tudd kenn xamul politiciens yi ñoom ñëpp am ay sites léegi ah. <laughs> feccikat bu ne ibbi sa site ku ne ibbi sa site. mu ko loolu noonu ngeen bëgg taxaw ñëw. ñu kii ko bu il faut que ñu ñëw nag la presse. Mhm. jël la responsabilité dem dans le débat. de la justice débat défense. débat diplomatie. Mhm. débat politique normal d'inviter de grands kangams, ñuy toog di waxtaan. Mhm. mais si ñu nekkee dans l'amateurisme, mhm. si bu ñu dans le mœurs. si ñu nekkee dans les « people. on est dominé par ça mais Abou est ce que souvent aussi ñi nga euh, les les les. les détenteurs ñi nga parce que je me souviens avec le problème de des médias, quand quand je me suis approché du du de, de, des impôts et domaines pour pour ñu pour ñu jox quelqu'un pour nous expliquer ce qui se passe.

nan la privés. amé ben média d'état muy xëccio publicité ak média privé privés nan lañu mëna amé ben média d'état bo xamni ni ñun fay redevance mhm. match Sénégal Sénégal national mhm. mu xañ ko Sénégalais té ni dafa bëgg une équipe nationale concorde nationale nan nga mëné lool nan nga mëné am lool légui moy indi nga le soleil nga le journal moy indi tamit dama fiscalité bi mhm. am nañu communication bu ñu def mais dans les normes si tous les médias sont régulés ñu ngi en régularité. mais ñoom soxlawul ñuy dem di uti information. chaque média mooy génn ne ñun kat dañuy jot redressement mais ñu ngi fay. Mhm. dinañu xool sur leur comportement. Mhm. mais fii li xew. mooy c'est-à-dire dafa am kero nga gis bi mu amee CDEPS ñu dajaloo patron de presse dem seeti président mu baal leen. non rek la ñuy def patron de presse du ñom ñoy dem jëndi public reportage yéen moom boolewuñu leen ci. et puis ñom sax yéen télé yi code de la presse bi bëgguñu mu jall hein patron de presse non parce que patron presse ñooy séddoo ñom ñoo nekk ci fond ba bëgguñu code de la presse ñoom seen wàll boobu ñooy dem ñu baal leen impôt yi ñoom ñooy dem jëndi ji reportage ñoy dem séddoo publicité bi ñom ñoy dem ci ministère yi jël marché ñoy jël mais jamono dafa soxlaati politique da ngay dem jënd temps d'antenne public reportage il y a beaucoup d'émissions payées da ngay fay donc lolo journal bi légui presque LMAF c'est payé légui lolo patron de presse si nga benn Samba Sulabaale mooy ñëw taxaw fee. Mhm. xam nga tey je comprendre ku ñëw ne fii da ngay def tarixa bi comme yéen ak aspia moo tax ma ne ñun waa tarixa bi tamit ñun war nañ mhm. mhm. doole di la jàngal di la si wan ci yoon. yow nga préféré ca ña nga xam ni ñoom seen bénéfice. mu ngi jëm ci si ñeen njaboot mu ngi jëm aussi si loo xam ne dafay dem ci loo xam ni dafay dem ci débauche. parce que fa lañ lay wanee li la naqari foofu lañ lay wanee aussi li nga xam ne ni c'est contraire ak ak morale ak sa religion mais ñun ñoo leen di ñoo leen di sponsoriser ñoo leen di joxe publicité ñoo leen di partager mhm. ñun seen wàllu ñoo leen di aboneel donc ñun suñu wàllu boobu ñoo am problème malheureusement parce que loolooy problème bu ñu waxee ma leen non bàyyi bu leen wax kenn mhm. bu leen fi nekk di wax affaire u miis man miis yi génnee ca daara sëñ sëñ Mbaye si Abdou bi laa bëgg pourquoi ñun organiser wuñ ba nga xam ne ni suñuy booy yi wàccee kaamil jigéen ñi wàccee kaamil duñ leen organiser ay cérémonie pourquoi ñun wanewuñu li ñu produit yi ñuy génne pourquoi génneewuñu ñun suñuy profil ak ñiy génn pourquoi duñ ko def mais ñun dañuy toog fee ba pare ñun ñooy jël suñu doom yi inscrire leen ci tubaab bi jox ko ba mu nekk docteur ah. nekk intellectuel ngay wax ak moom mu naan la non vous la la religion patati patata <laughs> rus na sax tiim ne Seydi Hadji Malick mooy sama sëriñ alors wala sëriñ Touba pour pour terminer on va on va on va dañ koy tëjee ci li nga xam ne moom lañ tijji woon mooy euh, l'affaire Lamine Diack donc à pétition bi nga xamante ne merci beaucoup en tout cas on a parlé. Euh, de beaucoup de choses on est revenu sur euh, l'actualité du moment de ce pays mais on du ñu fàtte li nga l'essentiel l'essentiel c'est cette pétition quand même qui a été lancée mm, mm. pour que notre nouveau stade olympique euh, donc multifonctionnel mm. porte le nom de Lamine Diak. alors ban dernier appel qui lancé non dernier appel moi, ma là. lancé moi qui ko aussi mm-hmm. ci ñi nga xam ne la Lamine Diak Bokal pas-pas bi ci topp mbokk l'islaamu Lamine Diak, yi ñi nga mm-hmm. xam ne kër qu'on joxoon na leen ci le monde sportif mm-hmm. bi la société civile raté nañu occasion yëpp ci Lamine Diack mais nañoo profité ci li beneen bi si topp les hommes politiques mm-hmm. yi nga xam ne Lamine Diack moo leen ci beneen bi si topp mooy waa wattu pas-pas waa kër Maam Maodo di leen beral ngërëm mm-hmm. ci taxawaay bu bees bi ñu am mm-hmm. di woo taalibe yëpp benn kër la ñu am muy kër Seydi Hadj Malick ñun kër gi dañoo aajowoo bari ay bunt ak fenêtre ak yoon ñun bu ñu yabee ci ñun la dama bëgg désormais Serigne si Sy suur muy suñu xalif général teewal fi Seydi Hadj kër gi bari na ay daayira bari na ay programme bari na ay activité waaye mbay si man Mansour ñun ñëpp ko bokk mhm. dama bëgg désormais mhm. Serigne Mbaye Sy Mansour lii mu lancé muy projet bi ak pinsam yi mhm. ñu taxaw garde fou moom ci boppam mën nañ ko nangul humilité ndax sàng la mu el mox daa ndax moom ñaari cër la am sëñ Mansour a koy maamam borom ci ne Seydi Hadj Malick maamam fële ne ca Ndar ñooy ay maamam waaye nag ni mu représenté Seydi Hadj Malick dootuñu nangooti ñun ci suñu wàllu bopp kenn di xoos Serigne Baye Sy Mansour hmm. ci biir kër gi wala ci biti kër gi biir kër gi nag hmm. dafa laaj ñu boole suñuy doole doon benn ndax nit ñi mu ngi ñuy respecté ci ñu nekk benn ñun ñëpp benn lañ te Seydi Sëñ Mbaye Sy Mansour mooy synthèse bi hmm. moo liggéeyal mag ñëpp hmm. mag ñëpp aussi joxoñ ko moo fi nekk nañu jël suñuy lépp jox ko tàllal suñuy loxo ñun ñu nekk benn topp tàmbali projet yi jot na Tiwaawoon ñu liggéeyal ko suñu bopp jot na ñoo ñooñu tarixa bi jël économie bi ci en main jot na ñooñu tarixa bi wane seen bopp tey biir daayira wattu pas-pas ay profil yoo xam ne chercheur ingénieur ingénieur ñëpp signalement yi côté informatique jot na réseaux sociaux bi nañu boole doole yi dem abonné bu ko defee ku ñu ne ñuus ñu ne la tuus parce que dañu amoon ay sëriñ am fulla mm. diine ji ku ko mosalaal sëñ Babacar jóg taxaw Seydi Al Amin da jël ay millions di ko dépense extérieure pour ñiy gaañ l'islam mm-hmm. tey li fi xew mboolooy def nañu nii mm. sëñ Muntaxa ak sëñ Bay Si Mansour mm. ka fa bëggoon jaar mooy saay-saay bi Iran mënul jàll fa la bëggoon jaar pour kër benn xalifa ñun ñëpp ñu ànd nag déglu ko ndax ku la jox projet bu toll nii hmm. non waxul la jumaa de mais dama ne la jumaa standard international Serigne Mbaye si desalatuñu dara ñun ñoo ko desal kon nag nañu ànd ci projet bi te doon benn wattu suñuy pas-pas hmm. te tabaxu kër te taxaw nag kër yi hmm. abonné ci kii partagé ko c'est important kuy wàllu yaan sa dëkk tëggul wallaay dafa tëggul mu ngoog merci beaucoup Abou Diallo merci beaucoup ci appel bu am solo bi di ñaanal rek Serigne Mbaye Sy Mansour xalif général de Tidiane yàlla yàlla guddal ay fanam te wéral ko lool ba mu euh, mottali liggéey bi nga xamante ne moom la summ nii jumaa ji incha allah moom ñëpp ak ay euh, njabootu Seydi Hadj Malick ak taalibe ñëpp ñu fekkee ko daal di koy tijji ci jàmm ndax nag ñu ngi jëm ci centenaire euh, bu Seydi Hadj Malick si donc yooyu yëpp ay kii yoo xamante ne incha allah Malikia TV dinañ ci taxaw bu baax a baax a baax ndax xam ngeen Malikia TV mooy mooy leeru Maodo donc suñu xëy suñu gont lépp. ci Seydi Hadj Malick Seydi Hadj Malick Seck njabootam merci beaucoup Abou Diallo. non ñu ngi lay sant di leen gërëm di ñaanal malik Malikia TV yàlla na dugg canal. yàlla nekk holding. amiin yàlla na dem ba mun a recruter te ngeen aajoo nag respecté code bi. incha allah code de la presse bi. waaw nekk leen ci yéen. incha allah yéen yéen yéenay da in jaatun faasatun fatabayyanu la ñu wax. Mm-hmm. Mm-hmm. xibaar. Mm-hmm. daara ji moo ko war a saytu. ndax daara ji du yàq doomu aadama waaye day defar doomu aadama yéen yéen moom xibaar donc yéen kër gi na ñoom inshallah am fulla am pass pass incha aussi ba kenn du ñu yabee ci suñu presse bi. jërëjëf merci beaucoup amis téléspectateurs de Malika TV li mo moo nekkoon euh, seen émission Actu Show bu tay ji ñu ci doon nak nag Abou Diallo bu euh, euh société civile waxtaan bi amono solo ma sha allah njëriñ feñ na fi ñukay koy mais aussi di leen remercier yéen ñi nga xamante ne yéenay bàyyi xel Malika TV Malika TV donc euh, restez connectés inshallah Actu Show vous revient demain d'ici là portez-vous très très bien avec les programmes de Malika TV leeru Maodo.